ñëw fi teewal fi la présidente commission sociale madame Li. mu waroon wax jël ay kàddu si turu madame le maire Mariama Sarr ak si turu conseil municipal bi yépp bis bi nek bis bo xamné dañ ko jaglé ñi nga xam ne dañoo loru woon si mbënd mi ñi defoon ben commission bo xamné commission sociale bi dafa démon ci quartier yi nga xamné day faral di am ay tata am ay inondation manam ndox mi day ñew gagné leen ba nga xamné dañuy faral di génn seen kër yi di dem si école yi ci liggéey bobu nak andon nañ ci ak commission sociale bi yépp ñu nekk sama ginnaw ci lañ bok ak ñu nekk ci biir di bind and ci ak euh, chef de quartier yi and ci ak le comité consultatif de quartier yi and ci ak imam yi and ci ak ay personnes ressources ak ay porteurs de voix pour ñu gëna mëna dem seytu kër yi nga xamné réellement sapeur pompier ñëwoon nañ suñu en aide ndax ñoom ñoo nekk les premiers hommes yi nga xamné

def ko ci action sociale maanaam ay djégo yu muy def si population bi nga xamné yalla moko fi def mu jité leen di bokk ak ñom seen tiis di bokk ak ñom seen banex di bokk ak ñom ñep bo gisee madame la maire bu dëj Amé Mangfa, fa bu ngénte amé Mangfa, fa lu neex ma fa lu nakadi ma fa kon nak li su amé mune man kat xamna né mënd amna sama gox té man ma fi nekk maire li nga xam ne man antal naa ko sama institut dama koy jël yóbbu leen ko jox leen ko loolu moo taxoon tey ñu ñëw fii bokk ko ak les 466 yi nga xam ne yàlla moo def inondation bi am suñoo maanaam mbënd mi pour jébbal leen li nga xam ne bi nga duggee ci biir mairie bi gis nga ko ñu jox leen ko. kontaan rek ak jàppale jigéen ñi ndax li mu def ñëpp a ci kontaan ndax te ñun ñëpp wax dëgg yàlla ku fi ñëw tey rek kontaan nga ndax li man def na ko ndax ba mbënd mi amee sol na daalam yabal nañ kër gu ne dugg nañ fa kenn ku ne ñu wax la loo yàqule. xëy na nee nag lii tey la door a ñëw waaye bu ko jëlee yàgg na waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla palaasam bi yàlla ko yàlla yàggal di ko ñaanal daal daal kontaan nañ ci moom. xanaa kontaan ci Mariama saar rek xam ne lii mu def kaw la mosu fee am maire bu ne jaar nga fi nag waaye lii nag moom ku ko waxul tamit dañ koy joxoñ te dañ koy laal sax nag duñ ko joxoñ lii mu def kaw mu ngi fi soog am ñun ay jaboot lañ te léegi dund nañ lu mat juróom fukki at kon kon wax leneen loo xam ne amut kaw du duñ ko def. ndax lii waaye lii mu fi jox edd tubaar tubaarkàlla macha allah ak dimbali jaboot yi fu tubaarkàlla macha allah ci Mariama Sarr lañ ko amee. damaa gis Kaolack lu ma mës a gis muy lii li mos fee am de mairie Kaolack bii lii di fi génnee di dugg ci jaboot yi di fi génn dugg ci borom kër yi di fi génn di dimbali askan wi ci Mariama Sarr